sa ànd bi ak Idrissa Seck euh, dund ngeen ci lu neex dund nga ci lu metti aussi parce que benn moment aussi jafe-jafe am na ñàkk déggoom ak euh, njiitu réew mi jamono yooyu tension boobu moom balaa muy balaa muy génn naka ngeen ko doon euh, dundee. dafa jóge ci wàdd woow ci bureau mais dafay il va se séparer avec Wade day démissionner et que nous on était dans le dispositif de Wade cabinet bi lañ bokkoon cabinet présidence et je lui ai demandé président al ma bële pour ma bind sama démission parce que xalaatuma woon euh, bàyyi ko dem feneen c'était impensable il m'a dit gentiment non gardeel sa sa carte professionnelle ak sa arme ça pourrait te servir donc jour boobu après bi mu bàyyee nag ci une ci topp dafa dang dem pale je vis à la porte le gendarme bu ma retier il me dit amatoo accès fii mhm. j'ai dit oui mais Idrissa à l'intérieur je l'accompagne parce que moom ci sama liggéey xalaatuma duma ko séen mbala duma ko gis après j'ai appelé l'aide de camp Bara Sissoko que je salue au passage après il a appelé ñu bàyyi mu dugg donc c'était c'était la dernière fois ma dugg ma dugg présidence donc euh, après nag ñuy continuer di continuer ba problème yi am mhm. bi problème yi amee euh, c'était c'était très difficile alors lan moo nekk seen waxtaan bu mujj balaa muy dugg kaso kaso ci guddi gi benn waaye daf ma woo mu ne ma duñ ko laaj ci affaire chance de Thiès ma yéeg ci néeg bi fekk dama ko jëlee woon ay rasoir ay effet madame nekk fi woon madame sekk ak doom yi. Mhm. je l'ai muy jàng alxuraan je l'ai informé ni ma jëyee grand alors. ah bi ñu ko waxee lool. oui ne ko dañ ko dañ ko nar a jàpp ndax affaire chantier de Thiès yi. te du doon affaire chantier de Thiès. te du doon affaire chantier de Thiès. oui ci suba gi. ñu ñëw préparé wu tout ça. après il a fait son discours on est rentré on est parti à fële euh, ñu dem tribunal. Mhm. gars yi dóor grenade. après ñu embarqué waat dem dem dikk et les les policiers m'ont m'ont renvoyé quoi ils m'ont dit non personne ici j'ai dit au écoute fii danga may dàq ma jóge fi mais di nga ma wër. que je savais que nu Idriss sox soxla man lay woo. ma daal di dem tal dugg sama oto dem ñu toog quelque temps rek ci interrogatoire bi rek i la demande à boire waaye ji jël ndox indi ko mu ne ko jamais appelez mon vieux gars yi di ma wër di ma wër gis ma waaye ji ne ma mais non yow ma ne ko amul mais non yaa leen ma dàq c'est on est collègue entre noo ma dem jënd ndox ñoo jox ko mu naan après nag gars yi nag tegal ma foofu benn baax nag ne ma fii nag. ah oui waaw ma ban bi ci biti boutique bi foofu doon ne ma toogal fii bu la soxlaa rek parce que waa ji moom. amul amul paate amul sàmb moom day vieux lay wax ana vieux rek bu laajee vieux moom voilà donc pour ma ñëw jox ko lekk jox ko indi ko naanam indi ko léppam alors prison ñu bëri dañ doon wax parce que boobu moi je me rappelle wal stagiaire à Walfadjri Walf Quotidien que tout le temps da daan yore <laughs> uppukaay uppukaay bi fële prison de Rebeuss loolu dëgg la euh, euh, parloir bi waaw il faisait excessivement chaud là-bas maanaam fi ñu ko doon dugal benn genre cellule la boo xam ne parloir la quoi dañ ko def grille boo ñëwee xool ko nii da koy gis quoi ok mm -hmm. mais c'est extraordinaire la prison ok soo ñëw di wax ak moom day nekk ci benn grille après nga nga ngay wax ak moom léeg mu yor ëpp wantaay bi nii quoi mais su ma indee ndékki wala añ wala reer ñaari garde dañ koy accompagner bu ñëwee ba taxaw ci bunt bi il est au milieu moi je suis à l'entrée wow. je pose la caisse comme ça il me et communique par des gestes. ah oui oui il me fait ça mooy Ané Mbaye Coulibaly j'ai dit quand je fais ça ça veut dire ça parce que boobu jàpp nañu mbay. quand je fais ça c'est more or dire on communiquait garde yi nu regardait j'ai dit alors et le sport il me répondait après gars yi yóbbu ko nag bu ñu ko yóbboo cellule nag mu ubbi cadenas bi après ubbi ñu xool lekk bi. ah lekk bi yéen yéen dañ ko doon dañ ko doon tëj sax. ak cadenas caabi lawbe. kër ga. waaw j'ai dit di dit kii togg ne bouge jamais fais tes yi looy def def ko tant que togg bi ñorul doo génn ci bunt bi donc moom bu toggee ba pare. yow nga taxaw xaar. déedéet man du ma xaar j'avais un dispositif bu toggee pare mu woo ma ma ñëw bu ma ñëwee ñu ubbi lekk bi defar ko ma xool vérifier ñu daal di dugal ci biir ma tëj man maa yoroon cadenas ak caabi. moom mu yor double bi. moom mu yor double bi après ma def ko ci oto bi directement foofu bu ma ñëwee ba foofu ma ma ki ñu ñu annoncé ko ñu ñu transféré ko indi ko ma ñëw teg ko ci ci kees gi kees yi ci table bu ma ko tegee ci table bi après bu génnee après voilà ñu jël ko dugal ko ñu joxaat ma kees bi nga xam ne moo defoon ndékki bi. Mhm. après ainsi de suite ça comme ça am na benn jour nag ma sibiru nag ba sama tànk yi damm je mais j'ai dit non ça c'est une lourde tâche je peux pas confier cette caisse-là à quelqu'un d'autre ma wax nee nañ ma jël si sama kër bi ñu ma jël see nag après ma jël euh, sama kenn sama élément yi Mohamed Thiam il est en France oui. après Mohamed Thiam yóbbu ñu ba foofu ñu ne mu téye kes gi quoi parce que mënatu ma woon téye kees gi mhm. ñu ànd ñun ñaar ñu teg ko et après il m'a vu il a vu Thiam après ñu ñu ñu dugal lekk bi parce que c'est comme ça je ne pouvais pas son sa à à quelqu'un alors euh, balaa ñu génn ci ci ci ci Idrissa Seck maintenant bi mu génnee prison Euh, parce que c'est sûr que boo moytuwul bi muy génn yow boo moytuwul yow la yow la njëkk a gis. Uh-huh. normalement. Ah, nga nga ñëw jël si ko. waaw lan ngeen waxante yéen ñaar. <laughs> comme d'habitude rek xam nga lui su ma ko gisee mu def dara wala mu mu mu génn ci dara je dama koy dama koy nuyu dama dama koy dóor ci épaule. te moom bu ma gisee lu muy njëkk def Idriss Seck mooy day ree mm-hmm. je jamais vu ma xool ko nii te reewul su ree pare après il me vieux donc bu mu génnee prison après ma kii ko je l'ai vu kii ko ñu dugal ko ci oto bi après yóbbu ko këram ainsi après nag ci la ñuy jóge fii dem France nag ma nekkoon France nag pendant pendant un long moment après voilà quoi pour parce que la famille était était était mais mais ci diggante bi prison bi génn prison beeg yooyu amoon na day am yoo xam ne day am parfois une nuit par exemple mhm. on était à sali on dormait dans sa résidence quelqu'un m'appelle un gendarme il me dit maa ngi place sàngam kaay j'ai dit moi je peux pas bouger l'autorité est là mu ne ma cherche à sécuriser la maison c'est obli c'est il faut être la donc j'ai sécurisé je ma suis déplacé je suis venu j'ai vu le gars dugal ma ci ay ngeer mu ne ma xamuma la xamoo ma mais mhm. xam naa ne yow yaay gérer sécurité mais fi ngeen fanaan baaxul j'ai pas cherché à comprendre dama daf la wax loolu rek yow automatiquement nga dëpp comme jóge naa kër ga ma dëpp ñëw dugal oto bi ma ñëw fëgg ko fekk muy nelaw mu yóg mu muy ko fii baaxul tey de il a pas cherché à comprendre noonu la ñu jëlee sunu bagage jëg sunu sac def ci jéggi jaar beneen côté dem fanaani feneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne je peux pas le parce que je suis professionnel mais il est encore te boobu duggagul woon prison ou bien boobu dugg na ba pare boobu duggagul woon boobu duggagul woon donc coow li bras de fer bi mi ngi continuer bu baax ba mu def seede euh, am boobu xaw ma kii am boobu dóor seede yi dóor seede yi ma dem ah. ma dem ma dem ndar quelqu'un ma di dañ lay jàpp ji lu ma def boobu maa ngi añ ak moom mhm. le téléphone insisté je sors il me dit je suis tel tey dañ lay jàpp 18 heures le commissaire vient me chercher 20 heures on m'amène et il me dit euh, tu as menacé un journaliste euh, Siaka Ndong avec une arme j'ai dit bon j'ai pas alors ils m'ont amené et puis le matin 4 heures du matin j'ai dit au commissaire bàyyil ma jàpp maa ngi sama kaamil pour bu ñëwee ma julli mu ne ma yow jamais ngër ci ma après nag bi ma génnee j'ai trouvé waa BIP kenn kobos ma après ma xam ne xamme nañ ma mhm. ñu yóbbu ma on a pris d'autres gars après waa waa dig déménager indi seen bagage yu asandoo yi xam nga caw fii kii après waa ñu taxañ ñu rek sànni ñu prison foofu 72 jours xaaju guddi ñu ñu ñëw di ñuy génn ma ne ma waa ji yow foo mës a gisee détenu buy génn xaaju guddi heure bi mu ne ma yow fii coono gi ñu fi am génn rek ngay def tey ci guddi gi <laughs> après on est sorti. après c'est comme ça que vous êtes sorti. Oui. alors.